lancement euh, mission d'évaluation boobu amal nañu ko démb ci teewaayu euh, seeni euh, partenaire directrice de la santé bi nga xam ne moo fa teewaloon ñu dénk wàllu wér-gu-yaram mu ngay rafetlu démarche bi nga xam ne waa Cour des comptes warees nañu ko amal ci lu ni mel Fatou Mbaye Sylla lay wuyoo ay kàddoom wax na nga ko bàkk yokku. La question des urgences a été souvent mbirum urgence yi nag yàgg naa doon jàmbat ci askan wi ginnaaw ay rëq-rëq yu baree bari yoo xam ne nag dañ ko daan faral di nemmeeku monsieur le président évaluation bii ngeen di fas yéene def ak ñi ngeen ci war a àndal dina tax ba ñu mën a am gis-gis bu bees gis-gis boo xam ne ñeneen ñoo koy amal ànd ak objectivité ngir ñu mën a amal prise en charge bu mucc ayib ci urgence yi naam sax ñu fàttali ne ministère de la santé def na ci nag ay jéego en tout cas ministère de la santé mu ngi xaar bu baax a conclusion yi tukkee ci bile évaluation du ñàkk dina génne rëq-rëq yi li baax ak li ñu war a joyanti xanaa rek di fàttal ne urgence mooy vitrinu bërëbu fajukaay yi kon nag ñun ñëpp war a laxasaayu ngir service d'accueil des urgences bu mucc ayib. Nous yu nga xam ne nii ñëpp na daanaka dinañ ci buñ ci jógee yaakaar dafay am waaye feebar faju ba tey eh, day doy waar. ndax ba ma gisee ay directrice de la santé ndaw si fi nekk. mais c'est les mêmes hommes yu nekkoon ak Macky Sall ñoom ak ñoom Xemes ak ñoom Diouf Sarr ñoo nekk ndoowoon ministère de la santé doxut politique sanitaire. directrice directeur de la santé moom moo koy définir mais boobaak léegi lan nga fi gis ci wàllum santé Sénégal tey la feebar faju gën a métti tey nañu gën a am ay jafe-jafe hôpitaux yi tey nañ gën a sëngëm ñoo gën a feebar ñi nga xam te ne nii sax ñoo fa war a dem faju ji ay li ci ëpp ay matériel nañ lay wax nangam ak nangam et au est-ce que personnel bi le plateau technique loolu yëpp ay problème nañ am mais kon tey munoo am yaakaar bu fekkee ne ne même système bi moo fi nekk et incarné par les mêmes hommes aussi sa pose problème parce que aussi mënuñu wax ne rupture nañ bëgg mënuñu wax ne ne daa am fu ñu bëgg a jëm on mais encore les même hommes tamit aussi mm-hmm. tey jii nii mbirum santé urgence bii nii ñuy wax ba Cour des comptes génne ay conclusion yow sa bopp di nga jaaxle ah. di nga ne noo man mënu moo woon comprendre ne wala mësu woon di jàpp ne ne lii am na au Sénégal mais défaillance yi ci am kenn xamul fu mu toll te ñoom ñii di wax ni ñoom ñoom ñoom àlla la base ñoom parce que ñoom ñooy les managers bu fekkee ne ne urgence hôpitaux yi dafa am problème doxul bu fekkee ne ne tey prise en charge des patients dafa am problème mais c'est kan mooy la faute à tey li suivi bu war a am rigueur bu war a am taxawaay bu war a am kan moo ko war a incarner ku dul les autorités kon donc amul dara loo ci mën a xaar lu dul ay uwa yoo xam te nii yow sa bopp dangay ngay jaaxle da naan lii xaw ma ne woon mbirum santé au Sénégal am na ci beneen bi wax dëgg yàlla ndajeemu ay garab nag tamit wax dëgg yàlla askan wi sonn nañ ci loolu munoo leen boobu ba léegi boo leen dajaloowee li ngeen wax waaw mbirum garab yi dañuy jënd 66 milliards jéggaani dem jëndi garab indi Sénégal mais ba kañ mais askan wi ñi ngi bëgg dee garab dafa cher tey nit ñi amuñu lu ñu mën a jëndee garab yu ci pharmacie yi te loolu moom mooy dëgg bu ñu la bindalee ordonnance boo demee pharmacie lu mënta ñàkk nga koy wax parce que yow sa bopp amoo téeméer yow mën a dem hôpital bu ñu la bindalee ordinance boo demee amoo garab boo xam te ni mën nga ko fu mën a am parce que xaalis amoo ko pour jox ma lu mënta ñàkk parce que santé au Sénégal dañ ko privatiser moo tax jox ma lu mënta ñàkk mel ni tulleeg mal li ci pharmacie yi la ñu bëgg moom mooy dimbali leen ñu ngir yàlla seen yeneen rencontre yi wax leen nan ngeen di def pour tey médicament mën a wàññeeku au Sénégal ndaxte feebar yi mi ngi fu ne topp sa bënn saañ ba réer et puis surtout les maladies chroniques yi nga xam ne mi ngi def des ravages mm, mm, mm. njaboot yi sonn nañ ñii amee nañ cancer ñii hépatite B ñee ña nga amee ay insuffisance rénale ñii ñi ngi amee tension kër goo dugg am na koo xam ne am na ko fa am feebar maladie chronique boo xam ne ne askan njaboot ga day deseetuñu dara parce que faj nañ ba sonn mujj gi dañuy ket mujj gi dañuy yalwaan di xaawi seen sutura donc li ñu bëgg moom mooy utal leen ñu ay garab yu yomb beneen bi ngeen utal ñu ay garab bu bio nit ñi dépassé nañ ay produits chimiques dëkk yu développé yëpp léegi ay bio nañuy jox seen i doom ñu mën a am dundin mu mucc ayib. très bien jamono joojee euh, Thierno ñooy ndóol ñu ngi gën di ndóol ñooy am ñu ngi gën di am déclaration de politique bu euh, président Bassirou Diomaye Faye euh, ñu ko doon jéem am ñu ko doon jéem a méngaat leex ki nga xam ne moom mooy Amadou Ba durant campagne bi amul lu mu déggul pour fu mu jëlee kopparam. est-ce que du métier bi ñu nekk daanaka nag moom moo barkeel rek doy na waar de. damay sànq xel rek de man xaalisu impôt ma ngeen <laughs> parce que ñi may dégg. kon nag yow. <laughs> waaw mais mais donc. doo doo doo damay wax rek ci généralité xam nga. non xam nga journal yor-yor. ba suñu hmm. grand suñu Saliou Gueye. tey dafa posé débat bu am solo. parce que ñun euh, nee na ci campagne bi président Diomaye def na déclaration. de patrimoine hmm. waaye Amadou Ba defu ko. dégg na ci lu ne. waaw Amadou Ba def na ko ca nag ñu fàttee loolu te tey pour man comme ñi ñoo yore état ak lu mu mënte am ay forteresse war nañu mën a xam lu Amadou Ba yor. parce que mm. xëy nañu fi gis Idrissa Seck dégagement bu mu defoon OFNAC ñu génn lépp ñu xam lu mu yor muy xaas bu jéggi dayoo moom tamit boobu jaaxal. ñu xam nga dafa am euh, ki ki posé débat bi quoi. dafa waroon dem ba fond wu débat boobu parce que débat bu am solo la posé man ma jàng ko quoi notre doyen Serigne Saliou mm-hmm. tey mais li Diomaye déclaré. dafa am lu tuddee tubaab tuddee rapport de maanaam booy méngale moom Diomaye bi muy dugg école daanaka bu juddee 1981 88 la war a dugg école Sénégal à 7 ans ngay duggee kon 7 ans la am. boobu mhm. non boobu jamono yooyu laa wax. jamono yooyu la waaw jamono boobu waaw waaw waaw waaw 7 ans ngay duggee 7 ans. 1988 la Amadou Ba nekk inspecteur des impôts. moom ba muy dugg école. waaw c'est la Amadou Ba nekk inspecteur. waaw boo amee war naa. kon kay nag léegi Diomaye bu yoree alal bi yëpp da parce que man ba tey waxuñu ñaata la yor wax jëpp mooy loolu pour man deful déclaration de patrimoine ba tey parce que comme ñu ngi naan valeur vénale ak valeur réelle ak lii am na loo xam ne. yow moom vénal ngay sa problème yow. non mais dëgg la loolu non dama ne bi mooy sa problème. bi mu defee li mu wax ci campagne bi dèjà boobu andi na polémique. ñu mm-hmm. toog tuuti. Mm-hmm. ñu tudd ko moom xaw ma benn kër boo xam ne bii nii. seq na ko ak benn ministre ci gouvernement bi Cheikh Diba. Mm-hmm. loolu xam nga nekk ci woon. xaw ma am na wala amut. mais loolu ba tey leeral lu ñu ko xam nga. du noonu. mais boo xoolee li mu yor rek moom Diomaye. kon donc Amadou Ba. li ne moom la yor dañ koy mën a comprendre am kenn ku tuddoon nag taay bu njaay nekkoon directeur u cadastre mm. nga xam ne terrain yooyu bi ñu koy dogot dogot moom moo doon dagg parce que moom mooy cadastre nga gis sa alal bu jéggi dayo bi nga xam ne nii moom waaye ne ne am na ko parce que dafa transfert signé daanaka lu jege milliard wala mu 3 milliards mu mat ko mu ne am na ko mm. léegi xam nga ko doog ban problème lay posé tey mooy problème mu fonctionnaire ak euh, politique surtout fonctionnaire yi nekk ci yenn régies financières yi parce que Mambay ñun dañoo bokk ci ay kuréel au niveau international comme UEMOA dafa am ay directives. Mm-hmm. yoo xam ne nii ci ci UEMOA la mooy ñooñu noonu nekk ci crise financière yooyu dañu leen war a sorele ak politique parce que liy jaar si seen loxo ci xaalis dafa bëri te ñun ñu gis sa ci nguur yi mujj nii depuis Abdoulaye Wade depuis Macky Sall ñooñu dañoo di dugg ci politique bu baax a baax rawatina ak nguur gii nga xam ne ñu si ëpp ay inspecteurs impôts lañu tubaab nag nee na mm-hmm. la femme de César ne saurait être soupçonnée moo tax coowal déclaration de patrimoine Diomaye bii ma dama gis nit ñi defuñ ko débat national alors que dafa war a leer parce li mu am bu ko amee rek comme da mën a comprendre Amadou Ba yor li mu yor xam nga lu tax bi gëleem di njool booba coquette amul bi gëleem di njool boobu coquette amul amagul non dëgg rek nga fi wax waaw bi gëleem di njool coquette amul boobu coquette amul très bien chaque jour ak bu mu ñuy jox ceerno